acuudu billahi min alshaytaani fi kulli mawdicin wa fi lawtaani bismi lilahi wa huwa arrahmaanu wa huwa arrahimu qaada lil amaanu alhamdulilahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadi wal ali wa saxbihi dawi nawaali lwaali laqi lisaani waxlulan min hulum xad wajcalhu daakiran wa shaakiran abad wajcal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida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 Euh, sunu dundal weeru koor nag tey dañ koy sësale rek sësale rek ci xikma bi ñu indi woon démb doon wax ci euh, waxtu ni mu amee solo ak li ñu ci Sëriñ Tuubaa jàngaloon ci tey àdduna nga xam ne ni du jeex tey dañuy delluwaat ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa ci Masaalikul Jinaan buñ demee maa ngi fay jàngale njàngale ma am solo di wax ne néew yi ci bàmmeel yi de ku leen woon pëkk-pëkk bañ jóg nga ne leen lu ngeen gën a bëgg dañ naa la dellu àdduna nu mu gën a gaawe donte as caa lañ fay def sax as ñu def fa lu baax ndax bu ñu dellusee fii mu jariñ ñu mu ne kon nag yow mi dunda ni nga xam ne demagoo ca bàmmeele loolu téemu laa yee nga gaaw nag li la dese ci ak dund nga jëmee ko ci topp yàlla euh, dabaat dabaate ko li la raw ci sag dund nga xam ne nii ci ak càggante nga ko dund wala ci ak euh, mooy yàlla mu ne bala laa looloo faat ndax dana la faat ni mu faate ñi ci bàmmeel yi yow it da nga dugg ci bàmmeel bëgg ko la delloo si àdduna te loolu du mën a ne mu ne te nee na nit ku ne eh, genn noyyi gu muy yi rek nee na wursu gànjaru la woo xam ne nii mënoon na ci jënd koom mu bari ci sun borom maanaam trésor boo xam ne du jeexati mukk ci sun borom tabaraka wa taala mu ne kon nag sànq genn noo ci lu dul topp yàlla bu ëllëgee amal xiyaam rëccu rek la lay andil na nag bu fekkee nag danga ngaa sànq sag noy yi ci mooy yàlla nag loolu moom bu ëllëgee pertange ju mat sëkk moom la lay jural loolu mooy wa arxabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yacmalu saalihatan tanfaahum in xafalu faxtani baaxiya umrin xad mada bi xayri taatin wa lil xayrin hada qabla fawaatihi wala taxful abad an il muraaati li baatin al jasad wa kun uqayi daabita alxawaasi fi kulli waqtin xaafisa al anfaasi li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an yashtariya alkanza biha laa yatanaaha xayruhu fantabiha ixlaawu abdin nafasan min taaha yujibu asratan lahu fi saaca amma isa axlaytaha fi lmaxsiya fa saaka xusraanun mubinun fadriya kon mbokk yi nañ yeewu bu baax a baax a baax sëriñ bi de yee nañu ba tàyyi te it euh, américains yi nga xam ne ni de ñoom dégg wax ji euh, dañ koo jël di ko yi te jëme ko ci seen mbirum àdduna gis nañ ni ñu réussire ñooy première puissance du monde ndax ñoom dañ ne time is money nee nañ temps xaalis la kenn waru koo yàq kon nag jullit bi nga xam ne nii moom dafa woo mbirum àdduna ak mbirum àllaaxira kon nan la war a mën a sàggane rek bay yàq jamonoom ci naka sudut noonu kon nañ farlu rawatina nag ñu nekk ci jamono boo xam ne nii gannaaw bu ñu amee wurusu gànjaru ñu nekk ci jamono boo xam ne nii nag jamonoy promotion la muy shahru ramadan al mubarak nga xam ne loo ci def moom yàlla rek moo xam lam lay fayee kon nañ góor góorlu te farlu te wattandiku yi tey àdduna yi nga xam ne nii danañu gàllankoor